says, maa ngi nii fine Mingi lang laa waajali déedéet kay No, man dama teel a ñibbi sant wuñ bi yow naka nga suma style bi <laughs> dang mana. like seriously sax de bi léegi la ma jógee koo sax abal ka style bi ma ka ko boobu moom pour man rek <laughs> gis naa ko wala loolu la comment Facebook bi nga moom nu mu yow non waaye yow moom suma waay nga dinaa la abal style bi ma yow caaxaan taxumaa jóg caaxaan taxumaa jóg béti béti béti yàgg naa laa waxal indiw ma la si kër gi fii def di yow ñu ne rek pour nga du fi ab meebal bëgg indi la fi pour nga nekk si internet bi di wax waxi photo ki wax di bindi su ma waxee nga jël ta gémmiñ gi xacc ko melni ni caku bëgg dugal ci waañ mi nga dem togal ma reer ma dindi ma dama sona li lan la ñuy ba man ma toga tey yo do dem toga li lan la man ma ci yobé ci lolu man la def yow ñu def 30 ak luma tej rew ma yépp pour indi la fi amo dara luma wax lu man ma togu de ma yaa togu lolu motax ma tak la amerika la de fii du Banjul de man laa joobee ci loolu. xool ma si kaw ba si suuf. xam nga di billaay wallaay tallaay waxoon naa la ne la dinaa la boole ca bàyyi nga foog ne damaa caaxaan boo saagaree dinaa la dóor ba nga foog sa sagar. lu ma Amérique nag moo tax nga bëgguma foyantoo bi di mosuluma yebbe tegal ma ndogu biti jigéen ñu baax ñi yëpp ñu ngi rawante ci am ngërëmi jëkkat amula suma li ñoo wax ne juróom-ñetti bu nde a jana ubbi pour sa jëkkër yow eh, eh, pour pour nga dugg ci su fekkee ne am nga sa ngërmande jëkkër amulatuma ngërmande béti yaa ngi maa laal nag laal nga ma benn laatuma xol bi. mënuma ko bii ba maa tooga tey toogal wala nga dem dindi. <laughs> di di di noppi noppi toll ma ne yow xanaa na di yàgg naa ko wax dama ko rëy si léegi dama yaa si léegi yow sa kaso ñor na wa na ma tooga tooga tooga wax mu dañu cakku nii si xool yow soxna si nu déglu ma déglu ma loo de ko dóor na na raw tomate doom. bu ko yaram gi ko raw mente xonq kii dinaa ko dama ko rey si léegi. am nga daaw toog nga fii ma wax la ne la de fase naa ko yow yaa si jàpp bu ma ko fase. kii war naa ñoo nekk fii nekk si internet bi soo waxee ñuy def seen yëfi foyintu yi rek ma wax naa ko toggal naan ma démb maa togg te yaa war a togg fu mu kii war na maa togg loo mën. Eh, eh, lu tax mu ne nga war a togg. mu ne parce que fa ay liggéey ma ne faa war a non léegi nag dégg nga dégg nga léegi ñu jàppoo nag. non non non non xanaa mënuloo toog. nañ jàppoo doo mel ni kii nañ jàppoo. soxna si toogal ni toogal ni soxna. toogal toogal toogal toogal déedéet toogal toogal toogal pareegu toogal. yow alal man suma mbaxana bi sa sànni nga yow di néeg bi yëpp jaxase nga ko am nga la soo xanaa nga rus ma bokk xanaa nga rus ma bokk. barke yàlla dinaa ko rey. boo doo ko fi reyee nag su ma kanam dinaa ko rey. ndégal soxna si soxna si soxna si yow tamit nag ku wax lii wax lële yow xam nga ne foo jotee kii ma faral la waaye tey kat yaa ngi bëgg a juum de loolu nag ngay kiiwee sa jëkkandikoo dama toggi te yow a nekk si néeg bi. dama sonal. lu la sonal. dama dem liggéeyi waaja su ma toogee tey mu toog a. yow man loolu ay bañ a dégg waaye yow donc eh, yow kii la kii la donc sax waaye kii moo laaj kii la ay. man daal soo si sonnee bàyyi ma ma uti. donc toogal nii toogal nii gis nga toogal nii dinaa ko soxna si dama si biir dama si biir rek ma waxtaan ak moom moo paree dinañ jaarale ñu nga dem si biir waxtaan ak moom yow mënuloo la yow mënuloo ànd ak sa sago xanaa mënuloo ba nit ki. yow dinaa la ii yaa ngi dóor kii bu ko. man néew ma si réer dégg nga. waaw du ma la wax. buñ nee di def seen yëf yi internet bi rek si internet bi laa ko fekk. buñ toogee commencé dugal ay nataal ci Facebook bi ak Instagram bi commencé di def seen yëf yi cagay di cagatu si internet bi rek. kii la yëpp yaa buñ commencé di cagatu si internet bi. ba dugal benn photo ñaari photo ci téeméeri nit ñaar téeméeri nit laagal leen ko rek ñu perdre. ñun amati seen seen seen seen saami jëkkër yi soxna si am na lu mu la wax de na mu sa yëgu sa nag kuñ si ba max mu jël dara laa jëlul déglul soxna si wax na la ne boo si sonnee may ko baat ko xam nga yow yaa xat baata yaa fi baata mu ngeen cagatu mu ngeen cagatu mu ngeen cagatu si internet bi wallaay bu doom doon tudd si internet bi am na fukki doom ak juróom bu doom doon tudd si internet bi cagatu gën ne am na fukki doom ak juróom déglu ma wax la rek déglu ma wax la rek fii fañ war a jàppalante loo xam ne toogalanduma ci waaye fa nga war a naxanteeg moom parce que yaa ngi ni léegi la wàcc liggéey léegi nga wàcc liggéey dégg nga yow tamit nag doo mun a mu dem liggéey juróom waxtu yu moo liggéey dama des moom ñeneen rek trente jours dina bu baax ñun suñ jógee ngaa togg sa sa njëlab jëkkër li fa ngaa toggal sa jëkkër njëlam li dem liggéey boo dee loolu la bëgg na toog ci kër gi man danaa dem liggéey dinaa def lu ma war ci moom yëpp man dowuma góor gu da daawul suma responsabilité déglu ma la loo ko fi wax loo fi wax waxuloo fi ne daaw waxuloo fa ne bu fi nekkutoon lambaay ñaaw ndax yow yaay fay néeg moom mu fay courant jënd lu nekk ci grocerie bu nekk ci yow xam nga ne yow boo dee liggéey mënuloo def loolu xam nga ku xam naa xam na njëkk bi nu boo sa joor fay ngóob fii nga ngóob fii si néeg bi nag bu ngóobee fii nga ngóob fële waaye boo ñëwee sa fekk toog ma ne ko a ah soxna si lu xew ne dama soxna waaye jógal ñu dem si waaj bi ma jàppale la loolu sax neex na nga jàppale ko fi xolli lu ko soble wala xolli pompiter mu def ni ngeen togu su bari yeen ñaar ngeen lekk. ci waxtu ak juróom benn sixteen hours laa liggéey. mom ñaan hours la liggéey moom ben benn juróom ñetti waxto gis nga man man nag rew ma la jógee duma ma ci. ci ndox mi mu ba tax ma bant du yàgg ci ndox mi ba lu ma ko loolu farale lu ma ko waaw man jow sa bop tax yang ma maa bëgg a ndax man di ma dama ko xam yàgg ci biit dekk bi war tax saxul nga nek américain def ma war a def jamono yi ñu tollu sa doom sax boo ko booy wax ak moom dafa am nooy waxee ak moom lu mu wax naa wax ju neex wax ju te lu mu la lu mu la mayut du la ko xañ dégg nga lu yomboon a soxna si dégg nga wax ay lu tax ndogu bi dama sonn ah waaw man di dama maas gi yéen ak jigéen ñi bu dee da nga am ab jàqab américaine naa la ko daaw nga foog ne maa caaxaan bu dee fa nga am américaine boo xam ne moom ngaa dogo dogo ci gannaawam mu laa def loo yendi man Gambia laa jógee tey benn tubéeram ci kër gi maa tol fa koo def manut ko ma génnee ko ci biti mu ngee cagatu sax kii gis nga kii mu ngee cagatu waaye mu mu ngee cagatu man man ma def ko